rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah jullit yi mbokku taalibe yi noo ngi leen nuyu te baax di fas yéene indi leen ndigal loo xam ni mi ngi bàyyikoo ci sëñ Moustapha Mbacke Mouhamed tey jii ji àllal ba juróom-ñeenti fan si weeru tamxarit dëppoot fukki fan ak juróom-ñett si weeru août 2021 noo ngi fii ci kanamu sëñ Moustapha Lo Bassirou di kàddu yoo xam ni sëñ Moustapha Mouhamed moo ko digal ngir moo ko yëkkati jëmale ko ci mboolem taalibe yëpp nga xam ne dañoo jaayante at moom jox ko suñu bopp di déglu ndigalam waaye mu laabiyee si nag mboolem jullit yëpp kon kàddu yooyu la ñu fas yéene indi ñu bàyyi ko sëñ Moustapha Lo Bassirou mu jottali kàddu auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala raufi rahim muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xayri xadimihi ahmada ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi fii tey ngir jottali leen ndigal lu bàyyi ci cheikh moustapha mohamad mbakke yàlla na ko fi sunu borom yàggal lool te wéral ko ci barkeb sëñ Tuubaa cheikh moustapha dafa wax ne gannaaw ba mu jaarale ndigal ci jëwriñam sëriñ Baara Mbakke muy jëriñu ahibaalu xadib gi yépp sëriñ bi dafa wax ne mi ngi digal taali bi yëpp yi nga xam ne mooy sunu bunt ci sëriñ Touba kenn ku nekk ci nun ndigal loolu yi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbakke daf ko joxe woon ci gannaaw muy njàngoom xasida ak alxuraanul karim sëriñ bi nee na ndigal loolu yi dafa bëgg nu gën koo dëgëral bu baax a baax gën koo saxal gën koo feddali ba tax na wax na ne mi ngi nuy digal dale ci bisub tey bii ba faw kenn ku ci nekk bis boo xëyee taari bi bu ne kenn par kenn na kenn ku nekk jàng suratul ixlaas juróom-ñeent fukki yoon ak juróom-ñeent 99 suratul falaq 99 moom itam juróom-ñeent yoon ak juróom-ñeent suratul naas yi 99 juróom-ñeent fukki yoon ak juróom-ñeent boo yeggalee loolu nga teg ca xasid ak sindiid benn yoon jàngeen wi nag dafa wax ne juróom-ñeent fukk yooyu ak juróom-ñeent da ngay tànn ci ñaar yi bu la soob da ngay jiital juróom-ñeent yi teg ci juróom-ñeent fukk wala nga jiital juróom fukk teg ci juróom maanaam da ngay def 9 def 90 wala bu la neexee nga def 90 def 9 sëriñ bi nee na yi lañ ko jàngee waaye nag yaare jàngeen yooyu te fas ci sans borom defal jàmm jullit yëpp fuñ ñu fi mën a nekk fas ci sans borom defal jàmm adduna sépp nee na loolu mi ngi ni koy digal kenn ku nekk nag bis bu ne da nga koy def bis bu yàlla sàkk digal na bépp taalibe bi boo aju ci moom bu muy sa buntu Serigne Touba Cheikh Moussa ne lii bis bu yàlla sàkk na ngay na ngay def loolu yi nee na nag mi ngi koy gën a fëddaliwaat bu baax ci Ahibahil Khadim bi nga xam ne eh, mooy jumtukaay bi muy liggéeyal Serigne Touba ci section yi ko séq ak jamaatul muridina saadiqin dongay laxasaa yi ak mboolem seex yi ak mboolem ansaaru diin ak mboolem diaspora bi. nee daal lii nan ko saxal kon nag bokki taalibe yi ndigal nga ko yàlla noonu sunu borom defal tawfiixi xusnul imtisaali te sama borom yàggal fi Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké Mohamed ci barkeb Sëñ Tuuba wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.